Abdou Samad Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame. Abdou Samad juuf nga nekk président bu mouvement zéro inondation euh, ma lay laaj euh, zéro inondation lan moo waral euh, ngeen teg mouvement bu ni mel exactement. waaw xam nga soxna si maa ngi lay nuyu di la di la gërëm bu baax a baax. waaw xam na zéro inondation li tax ñu taxawal ko. ndax yàlla dafa dogal réew mi depuis deux mille cinq mu am benn phénomène bu fi wàcc ñu koy wax euh, inondation mu nekk benn phénomène boo xam ne c'est un phénomène naturel depuis des années euh, mu nekk loo xam ne ça fait mal à la population donc ñun en tant que ay citoyen ñu jàpp ne tey li ñu war a njëkk def ak li ñu war a suñu taxawaay mooy naka lañ mën a def pour jàppale askan bi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund Euh, jafe-jafe yooyu nag li mën a def pour mën ko régler mooy il faut ñu booloo organiser wu ñun ñi nga xam ne ñun ñooy population yi xool naka la ñuy gën a lëkkaloo suñu doole ci lañ am idée que ne war nañu créer li ñuy wax zéro inondation euh, zéro inondation nag c'est un objectif à atteindre donc ñu jàpp ne tey ndi inondation yàlla moo ko wàccee di mbir moo xam ne tey état Sénégal rek moo ko mën a xeex wala askan bi ne ku ci nekk dafa am wàll boo ci am noo war a taxawee parce que saa yu problème amee forcément solution dafa war a am donc ci la ñu créé le mouvement zéro inondation pour fexe naka la ñu mën a def pour lii nga xam ne maanaam problème la yàlla teg ko askan bi mu nekk ab nattu ñun ñëpp nan la ñuy lëkkaloo ànd ñu doole di joxe ñu xalaat pour que lii mën a nekk loo xam ne luy saafarawu la loolu moo tax ñu créé li nga xam ne mooy le mouvement zéro inondation. te yéen kon yenn genre action ngeen di teg Abdou Samad pour xeex euh, inondation yi ak sensibiliser askan wi si lan ngeen di yëngatu exactement. waaw xam nga tey su ñuy wax euh, yëngatu ci inondation d'abord li ñuy wax euh, li Gambie daan wax tout ce que tu fais pour moi sans moi c'est contre moi mënuñoo régler le problème des inondations sans l'implication des populations ndax c'est pas une affaire d'État seulement mais de tout am nañu ay xalaat yenn saa li nga xam ne tey état maanaam gisu ko wala loxoom jotu fa ñun ñi nga xam ne wala ñu fa yedd ñun ñu dëkk ci bërëb ba ñun ñoo ko fay nekkal loolu mooy waral ñun chaque année bu fekkee ne nawet ñëw na li ñuy njëkk a def ñu jël suñu jëmm yi jël suñu jot jël suñu lépp jox ko li nga xam ne mooy population def lu ñuy wax don de soi nekk ci li nga xam ne moom mooy soxlawu askan bi di leen ci jàppale assistance d'abord mais aussi di organiser ay moto pompe ci zone yi nga xam ne ay point baa dañoo am soxla pour ñu ko ci loolu la ñuy nekk at bu nekk su nekkee dafa laaj ñu def ay drainage artificiel ut ay tractopelle xotti yoon yi wala ñu jël suñuy tra loxo def li ñuy wax travail manuel ut ay yoon pour ndox mi mën a jàll dem yoonam yooyu ci la ñuy nekk nit aussi bu fekkee sa kër dafa am ndox nga am jafe-jafe amuloo foo nekk ñu jéem ut fuñ la yóbbu ma a mën fa nekk ba yàlla def sa kër am jàmm donc ci loolu mooy li nga xam ne ñun à chaque fois ci loolu la ñuy nekk mais aussi de delà de ça dañu am xalaat parce que aussi nous sommes des intellectuels organiques et conscients euh, dë dëkk ci dëkk bi parce que nit ki li muy dund ak bu nekk nam ko xamee yaakaar naa sax ëñëw di ko jàppale mën na ko bañ a xamee noonu mais boobu moo tax ñun ñi nga xam ne ñun ñuy dund li nga xam ne mooy problème mu mbënn mi dañ ci am xalaat yenn saa yi nag ci bëre bi nga xam ne foofu la ñuy waxtaane di xeex inondation ñu bokk ci kuréel yooyu di ci joxe suñu xalaat di jox état loo xam ne xëy na moom xamu ko pour mu xam ko pour mën a tenir considération ci li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg askan bi ci naka la ñu war a mën a àndoo pour régler problème inondation moo tax ñun saa yu nawet ñëwee avant nawet parce que dañuy wax inondation ñetti mbir la enjeu la ak aléa te ñaar yooyu noonu rek mooy problème inondation avant la pendant et après avant inondation nan la ñu war a taxawee ci la ñu nekk ni actuellement ci bi ñu nekkee ci pendant bi nan la ñu war a nekk doxee et après lan moo war a nekk suñu suñu taxawaay te yaakaar naa ci loolu la ñu nekk suñu nekkee ci biir nawet bi mbir mi ñëwee danañu sotteeku nekk ca am ca ak ngir bi loo xam ne matuwaay la ñu war ko jël wala lu ñu war a wax ak lu ñu war a dox ñu def ko ba nga xam ne ña war a war a saafara muy état ak peut-être les collectivités locales ñun ñëpp ñu àndandoor ci mën ko rek loolu yëpp ñu ñu ngi koy def léegi nag lu jëm tey comme ni nga ko expliqué tey idée euh, yi ñu am dañ koy partagé ak li nga xam ne ñooy les autorités les services techniques de l' donc looloo waral séminaire yu bëri su ko état bi def sur le comité national de lutte contre les inondations ñu bokk ci membre yi nekk plateforme bokk ci plateforme nationale pour la réduction des risques et parce que loolu noonu li ko indi mooy engagement bi nga xam ne am nañu ko ñu dem ci am ci benn notion day nekk sax ay experts loo xam ne tey parfois ñu indi ay technicien ñun liñ ci xam man sax mën na koo bañ a xam donc loolu aussi tamit dañ ci ànd ak état di ci collaborer ak ñoom oui. Abdou euh, hivernage deux mille vingt bi daanaka yegsi na naka nga gisee mesure ak euh, état bi ni muy préparer euh, inondation yi hivernage deux mille vingt euh, naka nga gisee mesures yi baax na wala baaxul. waa xam nga mën na ñu nekk bu ci ne baax na en tout cas li ñu mën a def seede te ñu xam ko d'ailleurs ñu remercier ministre bi nga xam ne mooy prévention ak gestion des inondations parce que gis nañu vraiment pour dire vrai taxawaay bi nga xam ne gis nañ ko mu tàmbali ko parce que bu ñu waxee inondation ne prévention ci moment bi ñu nekk opération waajal nawet à chaque semaine ñu ngi sur le terrain di wër réew mi di wër région de Dakar pour xool lan mooy les problèmes yi askan bi nekk di jànkonteel ak léegi parce que wax naa ko ne le actuellement état dafa am ay programmes yu nekk en cours d' exécution ay projet dans le cadre du projet 2 donc y a le plus de comme yu mel ni dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao Hann Diacksao léegi Maoraay ak yu mel noonu donc loolu noonu gis nañu ne am na ci loo xam ne tàmbali na mais am na ci loo xam ne ba léegi jeexagul léegi nag fi ñu toll nii li ñu mën a waxagul la ñu gis muy Touba gis ko euh, Kaolack gis ko Kaffrine gis ko Fatick am na ñu gis ne liggéey bi am na ay jeego mais nag mënuñu wax ne ndax liy am suba ak na muy tare la rek moo xam parce que tey mën naa wax ne change ak changement climatique bi kenn mënul natt na la inondation du am ci réew mi xanaa li liñ mën a wax bu ndox mu ñëwee naka lañ mën a def ba maanaam bu naree def ay jéya nan la ñuy ba mu mën a wàññeeku atténuer li nga xam ne mooy le le le mal je pense que ci loolu laa yaakaar ne mën nañ cee nekk mais ku la mën a assurer à cent pour cent que ne y de d'inondation ci yi ñu nekk ci réew mi am état bi mi ngi def des efforts considérables di euh, l'état a fourni de moyens colossaux loolu ñun dañ ci rafetlu di ko di ko di ci sant suñu borom mais nag taxagul ñu mën a wax ne le problème est totalement réglé parce que mën naa la citer ay zones yu bari. au niveau de la région de Dakar. Mhm. tey mën naa la jox ay zones au niveau de la au niveau national des quartiers comme abattoir Ndangaan à Kaolack ñu bokkut les quartiers les plus impactés pour le problème ñuy jooy lu jëm ci wàllu euh, nu ko di inondation à chaque année te ñoom ñu ngi dëkk ci wetu géej bi ñu bëgg ñooñu aussi tamit ñu bàyyi leen xel mais aussi tey boo ñëwee dans le département de Pikine commune bu mel ni Diamaguène Sicap Mbao nga xam ne tey am na ay projets yu nekk en cours d'exécution muy le PIS 2 nga xam ne depuis 2017 le projet en cours ñun comprendre ñu lan moo tax de léegi projet bi mënul egg te mun waxoon nañ ne ARD Euh, moom moo financé les soixante quinze pour cent l' état du Sénégal waroon financé les vingt cinq pour cent mais li waroon a combler li nga xam ne mooy les six milliards pour motal li nga xam ne moom mooy euh, li mu soxla woon nee nañu loolu moom moo lu sooxe ma jàpp ne tamit état ak doole bi mu am su defee loolu priorité yaakaar naa dana mën a saafara yàlla problème de Palimane Diarra loolu aussi nekk loo xam ne nit ñi yàgg nañ ko jooy parce que bu ñuy wax ndox ci jàmm gën ci Kambaaw Palimane Diarra bokk na ci zone nga xam ne ñoo gën a am problème et tout ça loolu dama bëgg état bi aussi gën ci góorgóorlu loolu wax ne état deful parce que ku xam inondation démb ak barki démb demoon ginnaaw raay demoon gunaas demoon feneen ak feneen na xam ne état bi def na ay effort ci programme décennal bi nga xam ne jóge nañ ci jëf nañ ci ay jéego donte nag jàpp nañ na waroon na gën a mën a ëpp loolu ci jéego yi nga xam ne def nañ ko parce que man yàgg naa wax ne taux d'exécution bi nga xam ne waxoon nañ ko man mësuma ci d'accord mais dama jàpp ne li gën tey mooy que ne président dafa war a fexe créer benn cadre de concertation acteurs yëpp lu nekk ci inondation ñu toog waxtaan parce que nekk na loo xam ne tey bokk na ci économiquement li gën a sonal nguuru Sénégal ci wàllu inondation ci wàllu koom-koom kon nag dafay baax kenn ku ci nekk jël mbir mi def ko sa mbiru bopp ndax réew mi li may wax toujours ñun ñoo ko bokk mais bu dëgg jubee ñu gis ne lii ay manquement la dañu war a am courage taxaw ne ay manquement la mais bu ñu gisee loo xam ne aussi lu baax la nekk loo xam ne ay jéego la état di ko def war nañ mën a am courage tamit ne état bi ñu jéem di def ay jéego mais nag nañu jàpp ne tey ci nawet bi ñu jëm ak changement climatique bi boo xoolee mbir mi déplacé wu na boo xoolee projet B bi Kër Massar li ci rafetlu li ci njiitu réew mi def jël plus de cent milliards dugal ko Kër Massar ndax boo xoolee ak lu gis nañu jafe-jafe yi waa Kër Massar doon dund lu jëm ci ay unité quatorze unité trois dem ci diggante ay Camille Basse mais bi nga gis ne daaw coow li wàññeeku na par rapport ak daaw jéeg kon donc ADM ñu ngi fay def benn liggéey mais nag ñu gën leen a ñaax gën leen a yokku ñaax pour ñu gën a gën a yokk seen taxawaay parce que nawet bi ñëw na te fi ñu am na ay zone yoo xam ne vraiment fu mel ni ay cité Sotrac fu mel ni ay biir toon ba yooyu yëpp ay problème fu mel ni euh, nu mu tëddee Socadef Carré Azur yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne tey ñu ngi au de gauche xam ne tamit am na laajkat ci jàmm gën ci Kambaaw am na ay travaux yu fa nekkoon mais travaux yi dafa taxaw te kenn xamul lan moo tax mu taxaw. loolu yëpp ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ne askan bi di jiite mbir yi di gis guddi ak bëccëg li askan wi dund day baax ñun ñu koy wax ci kaw ñi nga xam ne ñoo ko war a jotee jote ca pour ñu mun ci ut ay solution pour que loolu mën a saafarawu yaakaar naa daal tey suñu ko ren ci li ñu gis démarche ministre bi di ko def yaakaar nañ ne suñu continuer ci même dynamique bi je pense que ren moins de problème mën na am mais nous ne peut à 100% que mais, il n'y aura pas de problème à cette année-ci. Mm. Parce que tous les projets de l'État qui sont en cours d'exécution, de léegi jeexagul te yaakaar naa ne ku la wax ne ne fii ak nawet loolu mën na jeex wax l lu am kon nag ñun li ñuy gën a ñaax mooy les services yi nga xam ne ñoo yor inondation moo xam muy ONAS moo xam muy la DPGI moo xam muy ñeneen ak ñeneen ku ci nekk na nga teel a jël say matuwaay li nga xam ne moom créé ay plan de contingent fexe ba nga xam ne prépositionner les moyens à temps bu ko defee ak le groupement national des sapeurs-pompiers ak les euh, collectivités territoriales les acteurs tout le monde nekk dans une dynamique unitaire je pense que suñ ko defee la situation vraiment yàlla mën nañ cee ren. li di tiit ne bañ am. est-ce que zone de captage bi état bi def na fa dara parce que gis nga ni daaw bassin bi dafa débordé woon ñu dëkkee si zone bi yëpp di jànkoonteel ay jafe-jafe que état bi jël na ci ay mesures bassin wu zone de captage bi. waaw xam nga effectivement zone de captage récemment le ministre dem na fa. xool situation bi ñun aussi dem nañ fa gis. Euh, dañu jàpp ne daaw euh, li xew ren mën nañ am njort mën na bañ a xew parce que gis nañu ne pour l'instant état bi ñu ngi def ay jéego ci diggante mana bassin bi nekk ci CTO ak yeneen euh, canal gi nga xam ne ñu na fa. loolu nag njortu la rek buñ a am parce que li may wax inondation yi mënu ko ndax dafa nekk loo xam ne mbiru suñu borom la mais taxawaay bi ñu jàpp ne pour l'instant état bi ko fay def gis nañ ñun ci suñu wàll am na loo xam ne ñu ngi ko fay def mu nekk ay jéego léegi nag li ñuy def ndax la ñuy def baax na wala baaxul mënaguñ ca àddu war ñu mën a dimbale rek ñu dem ba egg ca bu ndox mi ñëwee ñu gis résultat ñu door a xam ndax lañ liggéey baax na wala baaxul parce que foofu lañ man a yem mais mënuñu taxaw jël garantie ne hmm. à cent parce que ñun yàgg nañ di wax ne dañoo war le problème une bonne fois pour toutes mais processus la lii mënu ko xeex ci benn fan wala benn at ndànk-ndànk lay def parce que looloo tax le président de la république prévoit un autre programme décennal pour ñu gën a yokku seen loxo gën a ñaaxaat askan bi pour ñu gën a mën a régler le problème mais nag bu ñu yem ci rek créer programme décennal parce que damay wax ne saa yu président indi programme décennal dafa war a am bilan à mi-parcours parce que bokk na ci problème yi nga xam ne dañ koy jànkonteel nit ki boo ko joxee mission ñu lay liggéeyal balaa ñuy dem ba muy jeex waroon nañu wax sénégalais yi li nga xam ne jot nañu ko def bu ci nekk ak fa mu jaar ñu xam li dox ak li doxul la sooxe lan moo ko waral moo tax toujours ma wax ne dañu war a créer benn cadre de concertation boo xam ne suñu ko defee incha allahu rabi képp ku ci nekk tous les experts ku ci nekk indi ci sa xalaat mën na def solution bi ñu décanté ko une bonne fois pour toutes mais mënuñu continuer chaque année le même problème se répète à chaque année le même chose revient donc loolu su fekkee ci loolu rek la ñooy il faut aussi ñi nga xam ne dañ leen di jox les les entreprises ñi nga xam ne dañ leen jëm ci wàllu canalisation yi ñoom ñu am ci nuñ ci taxawee parce que tey vraiment da ngay gis tey entreprise nga nekk doomu réew yi ñu jox la tey euh, marché pour nga defar ay canalisation nga def te la la neex te dara du ci mujj loolu nag président moo ci war a jël euh, jël jël à bras le corps le problème des inondations parce que tamit lu mu ci mënti def ko koppar tey su problème amee ëllëg ci moom kawam lay këpp wax naa ko inondation limité wu rek ci kër gu am ndox ak kër gu amoon ndox mais y a d'autres euh, actifs yoo xam ne daf ci bokk muy la problème économique dem ci wàllu sant santé dem ci leneen ak leen sur le plan social yooyu yëpp ay problème la ci wàllu inondation comme ci mënti nekk am na noo ci war a taxawee wax na ko sànq ci li nga xam ne ñooy les maisons euh, canalisation est-ce que askan bi dinañuy sàmm li nga xam ne mooy canalisation ma ne la effectivement kooku dama ci d'accord ak yow ñun dinañ ciy def suñu mën-mën les collectivités territoriales yi. Hmm. locales yi aussi ñoom ci am rôle. parce que ñoom ñooy les premiers ñi nga xam ne bu population bi amee problème ñoom ñoo war a jiitu ñu ngi topp seen ginnaaw war nañu organiser ak les conseils consultatifs de quartier les délégués de quartier di def ay campagne de sensibilisation ànd ci ak service d'hygiène ci ak ñu war a àndal bu ko defee ñuy waxtaan ak les ménagères de di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne ñoom loolu moo war nekk seen taxawaay mais mënuma d'accord. su problème inondation amee nga yuuxu ne dañu bëgg canalisation suñ la defalee canalisation li ci jiitu yow yaa ko war a sàmm xam ne lii sa njëriñ ci la nekk mais au contraire dañoo ñëw di ci tuur ay mbalit di loolu vraiment nekkul loo xam ne lu nit la ñun ñëpp dañ ci war a jël suñu matuwaay am ci ñu ci taxawee waxtaan ci ak askan bi sensibiliser leen bàjjenu gox yi on se béy ñëpp ak leen maar bu ko defee yaakaar naa loolu mën na nekk loo xam ne lu war a mën a saafarawu la merci beaucoup Abdou euh, Samath euh, Diouf maa ngi lay remercier bu baax a baax. Oh, voilà merci beaucoup. voilà may fàttali yow yaay président bu mouvement zéro inondation bu mouvement zéro inondation bu mouvement.